Mamadou Mbodj euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ngay coordinateur u f euh, te gis nañ ni jamono ji euh, Macky Sall nag annoncé na li nga xamante ni mooy dialogue bi li président Macky Sall ne daal ci altine gi woolu na ñëpp ñi nga xamante ne mooy ñi ñu validé waaye tamit recalé yi ba ci société civile bi fi mu toll nii melul ni dañoo bëgg tàmbaliwaat lii di processus électoral bi. waaw boo xoolee bu baax jun wax nañ ko ci conférence de presse bi ñu def vendredi. nee nañ boo gisee njàngat bi bu jàngatee li Macky Sall wax mooy li mu bëgg mooy ñu defaat beneen processus defaat beneen liste électorale defaat euh, benn calendrier donc boo xam ne xëy na li mu bëgg mooy ka ciy génn euh, gagné élection yi mooy ka nga xam ne moom lay tànn donc loolu lañu bëgg euh, teg maanaam imposé ñu ko. def nit def ko par force ne lii la bëgg te loolu moo fi am ci réew mi. nii nag gis nañ ne euh, fukki candidat ak juróom-benn waaye tamit ñenn ci société civile bi ñoom booy boycotté nañ euh, rencontre bile waaye tamit mën nañu xalaat ne euh, jaloog lam-lamee ko ndax dina am ab déet waaye tamit conséquences yi nga xam te ne xëy na mën na ko jur. waaw xam nga bu fekkee yow da nga woote dialogue boo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a yelloo demuñu ca mooy ñi nga xam ne mooy candidat yi nga xam ne conseil nee na ñii ñoo war dem présidentielle nga euh, ne ñooñu demuñu ñu ci gën a bari en tout cas société civile ñu ci gën a bari nee nañ demuñu bokkuñ ci donc mooy société bi divisé na divisé na te ñu gën a bari société bi nee nañ ñu dem donc euh, dialogue boobu amatul euh, légitimité amul légalité d'abord parce que conseil constitutionnel santaanewul loolu seen conseil constitutionnel dafa président puisque yaa war a jël jat jëlal date ba pare yéen autorités compétentes yi maanaam Sénat ak DGE ñu jël seen i warugar def élection yi loolu lañ ko sant moone du ko def donc mooy moom li ma bëgg mooy euh, def la ko neex te boo defee la neex na di nga def li nga xam ne jaaduwut te li conséquence mooy lan mooy moom bu demee bi def loolu euh, société civile bi parti politique ñëpp nekk ci mbenn mi ñu xiiroo ŋaayoo ëllëg déjà ñu ngi woote ville morte donc sénégalais yi sonn nañu sénégalais yi bëgg nañ jënd ci lii donc li ci xew mooy ay euh, biicoog maayo euh, xeex xuloo mbedd mi te gis nañ fi bu nit ñi génne ñu rey leen bu nit ñi ñu tëj leen bu nit ñi génne ñu yàq donc loolu moo fi nar a te loolu wax dëgg yàlla defe naa ne du lu baax ci réew mi conséquence bi daal man lu laa ci gis mooy euh, trouble public yu dul jeex du xaaj ak instabilité politique. moom mooy feram alors gis nañ ni euh, candidat yi ñu jot retenir ñenn ci ñoom nee nañu daal euh, daañu saisir conseil constitutionnel loolu fan la nara a mujjee. waaw loolu moom euh, kenn xamul mun mënuñu ñu ko wax parce que conseil constitutionnel gis nañ ne fan yi passé jël na dogal yoo xam ne wax dëgg yàlla àndul ak lii Macky Sall bëgg mais moo dëppoog yoon est-ce que loolu lay wéyal yàlla rek xam bu fekkee loolu la wéyal. mooy bu ko ñooñu saisiré dina jël euh, matuwaayam ba jël moom bésu élection yi bu fekkee du loolu nag mu nekk fi di ping pong ak Macky Sall bu boobaa itam lañuy toog di seetaan rek parce que conseil constitutionnel moom liñ ko mënal bariwul waaye Macky moom li mu bëgg ñëpp leer nañ mooy li conseil constitutionnel teg ne lii mooy yoon moom da ku ko jalgati. alors date gu yees gi defe naa ne moom la ñëpp di xaar ginnaaw dogal gi conseil constitutionnel jël waaye foog nga ni déggoo dina ci am. waaw léegi moom euh, déggoo moom defe naa du lu ñuy xaar lu ñuy xaar mooy yoon. yoon mooy def nañ processus bi ak si fii jël date rek moo ci des date boobu nag président de la République moo ko yelloo wala conseil constitutionnel bu ko président nangul jël conseil constitutionnel jël ko donc bu ko jëlee itam ñëpp dañu naan gongo parce que loolu moo loolu moo dëppoo ak li war a am wala dëppoo ak dëgg donc loolu ko ku ci nanguwul bon maintenant bu fekkee dafa ñu bëgg a jël yóbbu ñu par exemple juin wala août loolu mooy dafa bëgg li président dafa nangu li président bëgg bu fekkee def na ko nag ci li nga xam ne mooy yoon parce que président moom le 2 avril wax na ko ñëpp xam nañ ko mooy le 2 avril waratu nekk président la République de bu fekkee li o heures war nekk président de la république war na jël date pour def élection nu mu gën a gaawee mhm. donc date boobu moom euh, amul laam-laame dañ ko war a jël ci lu mu gën a gaawee ci mu gën a jekkee pour que le 2 avril président bi euh, abale abale keneen toog ci toog ci place am. moom dëggal na ko ci ay kàddoom yi mu yëkkati woon ba mu doon jàkkaarloog ñenn ci ay taskatu xibaar ne daal le 2 avril ci la nar a jeexal lii di euh, mandaawam mën nañu xalaat ni xëy na xel du tey ci li jëm ci prolongation mandaam gi ñu doon wax waaye tamit dëkk bi mënula des te amula jiitu réew loolu yëpp nan la nar a demee. Euh, ni mu war a demee moom fekkee dañ xool yoon rek mooy président moom le a maintenant pexe am na moom lay def parce que waa ji waxoon na ko euh, nee na moom pexe rek la fi nekkee pexeem nag bu fekkee ne sa sa xel ñaa ñaw wala ñaaw na tuuti mën nga xalaat ne moom li mu bëgg mooy bu demee ci élection ci dialogue bi tey ak suba ñooñu buñu ñu paree muy ay ñooñam ñu ñu koy jegeale ak ñoo xam ne seen intérêt rek la ñu wër bu fekkee ñooñu nee nañ ah réew mi kat mënul toog sans président ñoo ñun ñoo ngi sant président mu des fi bu le 2 avril passé sax mu des fi ba élection yi jot bu fekkee plébiscite boobu la bëgg ci ñooñu bu ko bu ko bu ko amee ci ñoom ñu génn comme ni ma ko waxee rek euh, ñu bari ci at askan wi duñ ko nangu euh, communauté internationale sax du ko nangu donc nekkaat fii euh, xeex a xuloo Euh, mbedd mi yàq yi dee yi euh, gaañu yi gën a bari rek hmm. donc loolu moo nekk conséquence bi mais moom loolu mu bëgg euh, xam kenn mënul wax ne noonu la koy defee donc li mu bëgg ak li muy def moom moom yàlla yàlla rek xam. caravanu ñenn ci candidat yi féete ci ku kujje gi tamit ñu leen di euh, disperser loolee nax stratégie bu état wu Sénégal lan la mu mel ni kuy signaler gauche jàdd droite. mais loolu lañ ko xamee depuis ñaari at a ngi nii euh, nekkoo fi lu répression maanaam ku yëngu nga dóor ku gestu nga mbéj loolu la fi nekkee euh, tëj rey loolu lañ fi nekkee donc ñaata nit ñoo fi dee ñaata lañ fi jàpp. ñaata nit nañu torturé ñaata nit ñoo fi gaañu ñaata ñoo fi yàqule donc euh, tere caravane mooy li gën tuuti ci li ñu def donc mais loolu rek mooy wane seen seen xar kanam mooy ñoom euh, li ñu compté mooy gendarmerie ak police ak euh, ay lacrymogène pour que ku yëngu ñu ne la du ñu teg la sa ñu teg sa place ba dootoo yëngatu hmm. donc loolu lañu fi gis te loolu defe naa ne loolu mooy état de non droit moom moo xew Sénégal boobu ba lëndëmal gi am tamit ci euh, datu euh, présidentielle bi lee pour yow lan moo ko waral ginnaaw gi nga xamante ne nag euh, nangu na exécuté li nga xamante ne mooy décision wu conseil constitutionnel. xam nga jëf moom mooy jëf mu solo li ngay wax boo nee man nangu naa li conseil constitutionnel ci jëfewoo ko mooy sa jëf dëppawul ak sa wax. donc ba conseil conseil waxee loolu bi léegi mu ngi mot léegi tey jii fukki fan ak benn te defewu ko loolu mooy bëggu ko defee li mu bëgg mooy kon euh, processus électoral bi ñu changé ko calendrier électoral bi ñu changé ko yóbbu ko juin yóbbu ko ba fu gën a sori bu ko yóbbu fu gën a sori ñu defaraat liste yi bu defaraat liste yi ñu def ba mu def pexe ba nga xam ne ki mu bëgg mu def si réew mi mooy def si réew mi donc loolu moom moom la bëgg. moo tax euh, date bi mënu ko jàpp en tout cas mënu ko jàpp ba tey jii jàpp ko parce que bëggul loolu dëppul ak li mu bëgg hmm. donc euh, léegi euh, li ci des rek mooy conseil constitutionnel jël euh, fitam euh, def li nga xam ne moom la yoon wax mu def ko. alors pourtant nee na nañu jël en tout cas li nga xamante ne euh, mooy disposition yi ci war yëpp ngir mën a organiser élection bi mu jaar yoon waaye ban date nga gis ne xëy na njiitu réew Macky Sall daana ko waaw kon ni ma ko waxee man yaa gëw moom dina fixé ci lu gaaw fii ak mardi comme ni nga ko waxee du fixé boobu bu mardi jotee nag bu fixé bu xamee bu xelam dellu see ba mu xam ne léegi loolu rek moo fa ne. Euh, bu fixé na fixé benn date euh, fi mu nekk nii le 3 mënatul nekk le 10 a fi des wala le 17 donc na fixé benn date bu fixé date bi en tout cas fii ak le 2 avril moom war na mën a war nañu mën a def li nga xam ne moom la ñu def mu jeex. Mhm. donc loolu moo am solo te jii. alors lan nga gis rek ne war nañ ko mën a def ngir ñu mën a dem ci élection bu libre inclusive waaye tamit euh, mu mu jaar yoon. élection bu inclusive moom amatul parce que gis nañ ne. Ousmane son quand même am na dayo ci réew mi te def nañu ay pexe ba mu ngi des ci kaso bi ba du bokk gis nañu itam ci parrainage bi am na ñu bari ñoo xam ne li leen génne day na xel ñoom nee nañ lu dëgg du yoon ñu leen di woy les spoliés ñoo ñu génne leen ci loolu yoon donc inclusivité amatu fi euh, maintenant li ci des mooy puisque euh, il faut ñu tey euh, pour que réew mi mën a mën a taxawaat bon nañ jéem a xool fichier électoral bi. général bi disponible ba léegi pour pour sénégalais yi xam euh, est-ce que ñu ngi ci biir wala nekkuñ ci biir parce que ñu ngi doon wax naan am na ñoo xam nekkuñ ci biir fichier bi il ñu vérifier ko donc loolu benn la beneen bi mooy carte électorale bi tëgg nañ ko tëgg boo xam ne ñun ñu ngi koy jàngat waaye liñ ci gisagum euh, tey na xel lool waaye euh, ñun loolu ñu teree taxaw nañu mun jëf ay matuwaay pour que élection yi en tout cas duñu duñu ko wëlbati. def ko loo xam def ci loo xam ne euh, du bokk du dëppoo ak li nga xam ne moom askan bi bëgg hmm. donc euh, encre éligible bi certifié des fois ne bon li des nag mooy euh, observateurs yi ne fi def ku rek li nga war def pour que ñu ñu am li ñu xam ne naam ci réew mi nga tànn ci réew mi. Mamadou Mbodj jërëjëf may fàttali rek ne yaay coordonnateur au F24 ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup. baax a baax jërëjëf merci beaucoup.